ma jàpp ne war na am mën a génne loo xam ne dama ciy roy sunu kilifa gi nga xam ne nun euh, ñëpp fu mu joxañ rek fa la ñu war a xool te muy sax Mamadou Mountakha ndegam moom mi fi nekkal seexul xadim waxut yem ci waaye dafa jëf dafa joxaaleel quatre vingt personnes ku ci am at loolu di arafi yi nga xam ne moo tolloog moom mi fi nekkal sëñ Tuubaa nag moom néewut jëf leen waaye dana jëf naa